franc CFA APE ak lépp loo xamante ni rek jàpp nañ ni euh, nooteel la euh, jóge ci euh, sax Occident jëm ci Afrique rawatina file ci Sénégal tey jii nag ñu dalal ko parce que dañuy waxtaane ay sujet d'actualité yoo xamante ni moo soxal sénégalais yëpp sujet d'actualité yooyu le xam ngeen ni coowal Covid 19 ci la daal di bokk Covid 19 li nga xamante ni moom mooy coronavirus bi yóbbu ay doomu aadama yu baree bari ci àdduna bi actuellement mi ngi fii ci Sénégal jotagum sax euh, nañoo am de décès euh, daañu wax ci loolu le dégg ngeen tamit euh, ak Covid 19 bi ñu ngi laam-laamee ne dafay am ay vaccin yoo xamante ni dañ ko bëgg a file filer ci Afrique coow li bari na. bi nga xamante ni Covid 19 bi am na euh, gis ngeen jiitu réewu Sénégal euh, jël na li nga xamante ni euh, ay mesures ay mesures daal di décréter état d'urgence ak ay mesures yoo xamante ni nee na ci lay accompagner askan wi ci état d'urgence boobule mesures yi baax na wala baaxul doyul ñu ngi laam-laamee li nga xamante ni mooy confinement maanaam tëj sénégalais comme ni ñu tëjee français yi italiens yi wala ñeneen ñi ci àdduna bi ñu ko waxtaanee tey jii tamit mu nekk feetum indépendance réew Sénégal ñuy féete 60 euh, ans bi nga xamante ni entre guillemets Sénégal ci la moom boppam est-ce que Sénégal moom na boppam waaw wala déet ak yeneen question euh, d'actualité tey jii ñu fas yéene ko waxtaanee ak activiste bile di Guy Marius Sagna ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. Ndeye Comba moro maa ngi lay fay. Mm-hmm. Euh, di la sant ci invitation bi di nuyu mbooleem liggéeykatu Rewmi FM. Mm-hmm. Euh, ak itam soppe réew mi FM rawatina euh, soppe émission toute la vie en parle. saa su ne ñuy am mbégte di la dalal fii euh, di la jaajëfal ci sa disponibilité aussi tamit di la yeggee sympathie bi nga xamante ni sénégalais wala ñu nekk ci réseau sociaux yi am nañ ko ci yow ne naa ko wax en tout cas bala ñuy commencer sax émission bi faaw ñu tuñ tooñ la tuuti Guy Marius Sagna ak occupé nga actualité bi surtout bi nga xamante ni dem nga di xeex courant bi nga xamante ni dañ ko daal di yokk. foofu euh, nga dem ba ci les grilles du palais def loo xamante ni jàpp nañ ni euh, constitution wu réew mi da koy tere euh, ñu jàpp la ci tëj la ci sax ci condition yoo xamante ni tamit ñu ngi ko doon dénoncé nga génn mais bi nga génnee gis nañ ni nga dem fu ñuy wax Etomé ñu bëri di wax ni mais comment feetil fait-il Guy Marius Sagna génn dem Etomé ñu koy defal ay rituel mu jël loolu daal di koy médiatiser lan moo tax nga def loolu da doon ut buzz wala dafa am ñoo doon xupp ci se passe. lu tax nga def ko. day kumba waaw <coughs> d'abord damay euh, gërëm ak sant mbooleem euh, doomu mm. Sénégal doomu Afrique. Mm-hmm. ak doomu yeneen continent yi nga xam ne ginnaaw yàlla ñoom ñoo tax tey jii nii ma jàkkaarloog. Mm-hmm. jàkkaarloog ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, auditeur soppe réew mi FM. Mm-hmm. ndaxte ginnaaw yàlla seen mobilisation. seeni ñaan seen seen dugg ak génn. moo tax tey ma mën a génn euh, ci kaso camp pénal mhm. donc euh, aw seen pay aw ma seen cant lu ma leen gërëm rek xeeb ko mhm. euh, yéen a tax ma nekk fii tey di nuyu itam mbooleem ñi nga xam ne ñoom la caabi féete ginnaaw mbooleem ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci fanweer ak juróom-ñaari kaso yi nekk ci Sénégal mhm. rawatina kaso camp pénal alors man ku ma xam ak ku xam FRAPP France Dégage xam ne li ñuy jéem a utal buzz. Mhm. mooy gis-gis ci ne Afrique ak senegal dañ leen tënk dañ leen jatang mhm. et fekk génnewuñu Afrique ak senegal ci tënk ak jatang jooju euh, du ñu génn ci ndool du ñu mhm. génn en fet ci jafe-jafe ñun wax jooju gis-gis jooju li ñuy utal buzz wax jooju gis-gis jooju lañu ñu bëgg fësal jëmmal ba jëm ko ji ci lu ëpp ci doomu Sénégal ak doomu Afrique donc buzz du pour man ngi Marius Sagna. Mm. buzz du pour ñun waa FRAPP waaye buzz bi pour gis-gis jooju la. mais mais mais lu tax ngay dem sa dëkk di médiatiser ay rituel yu ñu la doon. defal tamit Guy Marius Sagna. dafa euh, am mënoon nga ko def euh, je sais pas euh, mu nekk lu confidentiel et puis je pense que c'est confidentiel sax lu tax nga fësal ko mais da nga doon ut buzz il faut l'accepter. alors damay fàttali ne. waaw wala nga am koo doon xuppu. waa Etomé ak Niassia. waaw dañoo bëggoon organiser initialement une marche pour ma mhm. libération. Mhm. dimanche boobu. yàlla def avant ñooñu ñu ñu jël dogal ci ne. Mhm. au de marche pour euh, sàkku ñu bàyyi ma ma féex. dañuy organiser euh, benn ndaje pour sargal ma pour mhm. ñaanal ma ak ñoom seen. Mhm. daanaka man duma ci dara bokkuma ci organisation bi. xaw ma woon sax mbir mi naka lay demee. pour te dire la vérité Ndeye Kumba. man boobu mooy guléet 8 mars boobu. ma gis. li ma dunt li nga dund muusuma ko fekkee muusuma mhm. xam ne lu mel noonu am na muusuma xam sax nu muy demee donc après naka lañ ko organiser ak yooyu man duma ci dara mais ñaan ñoo la doon filmer nag gi mais ay citoyens sénégalais d'abord nga fa woon ñoom mhm. ñëpp yore seen portable d'accord mhm. ñaareel bi man personnellement dama foogoon ne ñaan yi ay dix wala quinze minutes la et ñaan yi euh, dañuy dem ci benn bërëb ma sukk ñu ñaan après ma ñëw def conférence. Mhm. parce qu'il était prévu une conférence gis ngeen sax conférence bi. Mhm. mais pour vous dire que man xaw sax liggéey gi di riir gis ngeen ne sotti nañ ma ndox. Mhm. wala waa Etomé dañ doon defar seen doom. wala da nga dañ gis ngeen ne da ngeen di xupp Macky Sall. gis ngeen ne sotti nañ ma ndox. Mhm. ndox boobu ñu ma sotti. Mhm. man caleçon bi ma yóbbu woon. Mhm. caleçon boobu toy xepp moom laa yendoo. xam nga bu ma xamoon mbir mi nu muy demee naa yóbbu ñaari caleçon. naa yóbbu ñaari sous-vêtement. mais sama tis maanaam sama sous bi nga xam ne dafa mujjee tilim sama kalson bi nga xam ne dafa tooy xepp. samay yére yi nga xam ne gis ngeen ni mu mel noonu laa yendoo bu ma xamoon liggéey gi di riir naa gën a jël ay ay ay ay matuwaay mais loolu yëpp pour wax ne xaw ma woon liggéey gi riir mm. organisé wu ma mm. man dama dem pour benn conférence mm. waxoon nañ ma ne dinañ ma ñaanal dinañ ma purifier mais koo xam ne xamul liggéey gi di riir man dama foogoon dañuy dem ci mais xam nga ne Etomé dañ doon ngemb kon seen doom loolu yëpp xam ma ko woon ndax pamti pamte neexu leen di la tëj ci kaso bi. ainsi de suite mais ce que je veux dire ah comme que bii yoon guy génn na faaw ñu jël suñ doom defar ko daal. ce que je veux mm, mm. li ngeen gis. Mm. ni mu nekkee guléet ci yéen man noonu la nekkee guléet ci man xaw ma ci woon dara. Mm-hmm. tous. Mm-hmm. man li ma jàppoon rek mooy dina am juróom wala fukki minutes yoo xam ne avant conférence bi dina am fu ñu dugg ñu ñaan lu ñuy ñaan te duma ma simmi du ma def dara. Mm-hmm. après ñu ñoo def conférence. noonu la demee. bi ma ñëwee daal ñu simmi sama yére ñu simmi sama sous ñu simi sama pantalon man loolu yëpp mbertel la ci man dam daf ma bett daf ma jaaxal parce que xaw moon ne noonu lay demee léegi nag waaw mhm. waa Etomé effectivement ñaanal nañ ma euh, purifier nañ ma ma leen di sant di leen gërëm ñoom waa Etomé euh, waa Niassia waa Bayot Essing waa Casamance ak ñoom seen mhm. li ñu jàpp moo di daal ñun waa FRAPP dañuy xeexal Sénégal yëpp ak Afrique yëpp et que suñu xeex am na solo et comme ci biir xeex bi dañuy buntu xatal di ñu noot ak ñoom seen baax na ñu ñaanal ñu et je pense que c'est positif. c'est positif voilà voilà léegi Guy Marius Sagna euh, tey euh, ci la ñuy féete 60 ans tey le 4 avril 2020 euh, 4 avril 1960. Euh, entre guillemets si le Sénégal am souveraineté euh, tey jii 60 ans Euh, peut-être am na euh, conditions yi gis nga yiñ koy féete ak Covid 19 bi et tout mais on célèbre sa au palais de la République tey jii lan nga ñu mën a wax ci 60 ans d'indépendance du Sénégal. Euh, 4 avril ak indépendance euh, bu Sénégal. Mhm. ay naxe la. lu tax. parce que indépendance. amu fi yow lu ñëw rek nga ne ay naxee la. Euh, waaw mais ba bés bi nga xam ne gis nañ loo xam ne du naxe mm. xam mm. nga 1960. maa ngi ko doon fàttali sànq. Euh, mm-hmm. ministre français bu ñuy woowee Michel Debré dafa bind euh, kilifa euh, Gabon bi ñuy woowee leon Mba. Mm-hmm. xam naa Léon Mba da ko ne waaw indépendance bii ngeen ñuy jox waaw indépendance la wala lan. Léon Michel Debré di ministre français tontu ko ci benn lettre ne ko bu yóbboo ngeen xam ne de dafa am ñaar yuy ànd. Mm-hmm. indépendance ak accord de coopération. ñi ñuy déglu foog ñu xam lan mooy accord de coopération. mooy li nga xam ne moo jiitu woon indépendance te France mu signé ko. France euh, mu imposé ñu ko accord de coopération yooyu moo doon wax ne franc CFA du fi jóge accord de coopération yooyu moo fi doon wax ne làkkum tubaab ci suñuy daara ci suñuy palais présidentiel du fi jóge accord de coopération yooyu moo doon wax itam ne euh, lépp li Afrique am ci wurus euh, ci euh, uranium ci euh, diamant ci petrole lépp luy alal mm-hmm. fii ci Afrique balaay Afrique rawatina réew yi nga xam ne Euh, euh, France moo leen colonisé woon balaay ñu koy jox beneen réew ci àddina bi France lañ koy njëkk jox te bu bëriwul ci France lay yem. Mm donc loolu mooy accord de coopération mooy itam accord yi nga xam ne avant indépendance da doon wax ne suñuy réew day am base militaire française waa léegi yow nga ne indépendance am na. mais franc CFA day continuer base militaire française yi fi nekkoon day continuer làkkum tubaab bi fi amoon avant indépendance day continuer mm. te ñu am fi wolof séeréer jaaxanke basari pulaar ak ñoom seen nga ne loolu déedéet après indépendance mel ni avant indépendance ban indépendance moo fi am avant indépendance base militaire française après indépendance base militaire française mm. avant indépendance ñuy làkk français tubaab après indépendance ñuy làkk avant indépendance franc CFA après indépendance franc CFA loo bëgg ah avant indépendance France teg loxo ci suñuy réew après indépendance la même chose donc indépendance amu fi li koy firndeel mooy. Mm. ah ñun ñii ñu ngi am ay président ñu ne nous sommes indépendants Covid 19 mu ngi fi am depuis plus d'un mois est-ce que gis nga. état africain yi booloo ne dañuy créer benn G10 wala benn G20 contre en fait le coronavirus mm. loo gis Emmanuel Macron taxawal G5 ñu koy woowee ñun mm. ma koy woowee man G5 cobaye G5 Kobaye. ñu am jafe-jafe contre ak terrorisme. au lieu ñun ñu booloo jël suñu initiative bopp il faut que France à partir de euh, dëkk bu ñuy woowee pro ca France ne G5 ñun ñu daw ne acca nañu créer G5 Sahel Sénégal nekk ci rukkam di euh, euh, di ñurumtu naan waaw lan moo tax ñun Sénégal sax bokkuñu ci G5 Sahel xanaa ñun en fait mbiru terrorisme bi sax en fait ça nu nous menace pas. Mm-hmm. donc amuñu indépendance il a fallu que Macron ñëw Abidjan. Mm-hmm. pour que même pas Macky Sall mais Macron wax euh, Ouattara wax pour ñu ne waaw foog ñu indi ay coppite en fait ci franc fa alors que ñun ndawi Afrique ñun góoru Afrique ñun jigéenu Afrique ay atta ngi ñu ngi naan franc CFA du koppar ju baax. ñu léegi éco bi ñu teg nag euh, guy. léegi éco bi loo ciy wax. ñaar mhm. benn bi mooy. Mhm. tey jii nii bu nit yi di wax éco ak euh, franc CFA bi nar a jeex. dañoo war a sargal gërëm sant ndawu Afrique góoru Afrique ak jigéenu Afrique yi nga xam ne. ñoo doon xeex franc CFA ñoo doon sensibiliser ci mbon bi franc CFA am ci wane ne franc CFA jumtuwaayu nooteel la nañ leen sant benn ñaareel bi mooy wax ne hmm, lii di ram bu ñu moytuwul dina mel comme jamono 1950 lan moo amoon. Hmm. France xamoon na ne indépendance mënul ñàkk muy fexe di complot. mu fexe ba Sénégal mu fexe ba ku ñuy wax Léopold Sédar Senghor toog ci bopp Sénégal ngir ñu ne indépendance am na waaye mm. Léopold Sédar Senghor di wëyal li France bëgg mu teg ci bopp euh, yeneen réew yi ñoo xam ne dañ dañuy wëyal en fait nooteel dañuy wëyal en fait colonisation mm. donc lii mooy euh, li am naam ay jéego def nañ ko waaye jéego yooyu ay xeex yu metti yoo xam ne ñu mel ni waa FRAPP ñu mel ni waa nitu dëgg ñu mel ni euh, waa Y'en a marre euh, waa Sénégal notre priorité ak ñoom seen ñoo ko doon xeex euh, fukki at ci ginnaaw ñaar fukki at ci ginnaaw juróom fukki at ci ginnaaw ba ñu am si astut bi mm-hmm. waaye bu doon suñu ay njiit rek tàmbali ko ci Léopold Sédar Senghor ba ci tey président Macky Sall duñ ci am dara mës nga dégg président Macky Sall wax franc CFA baaxul et mm-hmm. pourtant tey jii nii ñu ngi ne dañuy dem ci éco éco mës nga dégg président Macky Sall wax ne euh, je ne sais pas beneen jumtuwaayu nooteel euh, politique FMI banque mondiale euh, baaxul mm. non pourtant ñu ngi en fait ci nooteel li ma ci métti mm. ci jamono covid 19 bi ñu nekk mooy 1952 donc jamono colonisation ñu ngi amoon benn agent service d'hygiène pour 1700 habitants 1952 tey jii nii département Dakar mu ngi am benn agent service d'hygiène pour trente trois mille Dakarois maanaam dafa mel ni sax ñun dañoo dellu ginnaaw un agent pour mille sept cent mille neuf cinquante deux un agent pour trente trois mille agents d'hygiène d'accord jamono jii ñu nekk en plein Covid 19 donc ça veut dire que ñun amuñu indépendance fi may daanelee mooy bàyyi Cheikh Anta Diop daan na wax lu ama am solo donte bi mu génnee àddina ak léegi ëpp na fanweeri at mu ne réew joo xam ne mënul gàddul boppam kaaraangeem réew moomu. du am ñaar. Mm-hmm. du am indépendance du am développement daanaka Afrique fa la toll daanaka Sénégal fa la toll. mënuñu gàddul suñu bopp mais kaaraange militairement mënuñu gàddul suñu bopp mais kaaraange sur le plan sanitaire mënuñu gàddul suñu bopp mais kaaraange ci benn. fan daal li depuis 60 ans ay naxee mbaay la. ay naxee la ci dëgg. ay naxee la ay mm-hmm. kaf la. moo tax d'ailleurs ñu toll fii ñu toll. Mm-hmm. moo tax ñuy wëy euh, di sensibiliser euh, di xamal askanu Sénégal ci ne. foog ñu fer. ci nax yooyu. 4 avril du bésu ndam. 4 avril bésu défaite la. 4 mhm. avril du bésu euh, maanaam euh, mbumbaay euh, wala pàkkar ñi mbégte. 4 mhm. avril bésu dëj la. mooy lan amuñu indépendance indépendance jooju ñuy wax. Mhm. lu ñu war a xeex la lu ñu war a fokkati la waaye amul amagu. kon xeex bi tey la war a tàmbali. jëm kaw la waalo gën a aay. tey la waalo gën a aay daanaka xeex boobu musu fi jóg. ndaxte euh, moo xam depuis Ibrahima euh, Lamine Ibrahima Arfan Senghor. Mm-hmm. jaarale ko en fait euh, ci suñu ay doyen parti africain de l' indépendance PAI jaarale ko ci ay Mamadou Dia bu MSU jaarale ko ci ay doomu Sénégal yu bëri ñoom Aline Sitoé Diatta jigéenu ndeer ak ñoom seen xeex boobu musu fi jóg waaye. xeex boobu dafa yàgg néew doole. Mhm. mais at yii passé weer yii passé. Mhm. gis nañ ne li ëpp ci doomu Afrique yi bëri na si doomu Sénégal yoo xam ne seen gët seen xel dafa gën a leer ci ne lii ay naxe la foog ñu arraché foog ñu foqati indépendance te foog naa ne fii ak ay at yàggatul euh, lu néew la moo ci des. Sénégal ak Afrique dina jot boppam dina moom boppam ba ñu mun a bàkk loolu tax nga doon soutenir Sonko jàpp nga ni Sonko bu toogee euh, Sénégal dana moom boppam ba ñu mun a bàkk bàkku parti africain de l'indépendance moom sa réew bokk sa réew defar sa réew ndaxte ñett yi mooy tax Afrique génn ci sous développement alors Ousmane Sonko, Sonko effectivement euh, dama jàpp ne euh, 2017 Euh, bi muy euh, bi mu jiitee liste euh, coalition Ndawi Askan Wi. ci mhm. élection législative yi. liste boobu Ousmane Sonko jooju ñoom ñaar ñoo nekkoon ñi nga xam ne ñoo gën a dogu ci. nañu génne Afrique ak Sénégal ci nooteel ñoom ñoo doon wax mu leer nañ ci ne Sénégal ak Afrique dañ leen noot te fekk génnewuñ leen ci nooteel lu ñu génn ci ndool ma jàpp ne itam 2019 février 2019 ci jamono élection présidentielle mm. coalition Jotna avec son candidat Ousmane Sonko ci candidat yi amoon moo gën a dogu ndaxte moom mooy wax mbiru franc CFA mooy wax mbiru accord de partenariat économique mais est-ce wax e, dana ko def c'est c'est la grande question encore déjà mm. bu fekkee danga nga bëgg a ràññetle ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu politique da leen di déjà comparer ci seen discours. Mhm. déjà est-ce que dina ko def ou pas naa si ñëwaat mais déjà ñan ñooy wax ne Sénégal moomul boppam Afrique moomul boppam ku ko waxul munoo yaakaar ci moom dara ci ne bu faluwee dina fi dindi jumtuwaayu nooteel yi waaye boo amee bu bu fekkee da nga nar am yaakaar. da nga mhm. koy amee ci ñi nga xam ne. Mhm. ñooy tudd góom gi ñooy naan nena ngi. ñooy naan nooteel a ngi ñooy naan jumtuwaayu nooteel a ngi mu ngi tudd franc CFA APE euh, euh, base militaire étrangère euh, fonds monétaire international banque mondiale ku ko tuddul kooku mënoo yaakaar ci moom dara ñan ñoo ko tudd Ousmane Sonko bokk na ci ñi ko tudd léegi ndax bu faloo dina ko def am déet dama jàpp ne femme ak homme politique ñaar la discours ak parcours discours am c'est un discours anti-impérialiste discours Ousmane Sonko c'est un discours patriotique lan mooy parcours am ah parcours mooy njëriñu askanu Sénégal jaral na ko ba mu ñàkk liggéeyam njëriñu askanu Sénégal jaral na ko ba li ñu gis depuis bi nga xam ne ci la Ousmane Sonko ak Pastef ak ñeneen ñu mel ni ñoom feeñee donc mun nañ am yaakaar ci ñoom waaye yaakaar bi ëpp solo. Mm. nañ ko wax askan wi. président bi nga xam ne moo ñuy këlli-këllee moo ñuy foowee ci ñun la ndaxte ginnaaw yàlla ñun ñooy buur ñun ñoo war a bummi ñun askanu Sénégal président bu ñu munti yëpp moo xam président Macky Sall la tudd tey wala ku mu munti tudd ëllëg waruñu toog di ko seetaan muy def naka sudul dul noonu. tey jii euh, Guy Marius Sagna comme nga soutenir Ousmane Sonko euh, si jamais il devient le président du Sénégal mu def loo xamante ni dëppoowul ak ay kàddoom. Euh, ci euh, xeex nooteel bi nga xamante ni France noonu la nootee Sénégal wala Afrique est-ce que yow kon danga nga daal di retiré wu continuer di xeex ak le président Sonko comme ni ngay xeexee actuellement ak système bi nga xamante ni président Sall moom la teg. am naa yaakaar ne am naa yaakaar ne hmm. Ousmane Sonko du ko def. waaye bu demoon bu demoon ba kay def. Mhm. ñun xeexuñu pour jëmmi doomu aadama ñun dañuy xeexal suñu askan ak suñu continent pour ay principe la ñuy xeexee mënuñu nag wàcc di wanni maanaam. président Ousmane Sonko bu yàlla defoon ak askan wi mu nekk président Sénégal bu fekkee jëlee wu fi franc fa bu fekkee jëlee wu fi accord de partenariat économie bu fekkee jëlee wu fi base militaire étrangère bu fekkee jëlee wu fi politique FMI ak banque mondiale bu fekkee fulalul doomi réew ndaxte li ñu gëm mooy doomi réew mooy tabax réew. Mhm. ah waaw dinañ jàkkaarlook moom ni ñu jàkkaarloowee ak ñëpp ñi ko jiitu. voilà mi ngi noonu leer na démb euh, njiitu réewu Sénégal def na discours am mu nekk discours traditionnel comme chaque 3 avril euh, da koy amal discours bi nag gis nañ ni bii yoon daf ko daal di euh, accès focus ci li nga xamante ni mooy mesures yu muy jël concernant le Covid 19 wala coronavirus lan mooy sa analyse bi nga xamante ni def nga ko ci démb discours président Sall. ak milliards yi mu tudd ndimbal bi ainsi de suite facture courant yii ñi mu war a fayal ainsi de suite voilà. ñaar social bi ñaar ba ñett. waaw président Macky Sall de toute façon euh, day continuer di ñu nax. parce que mm. ci biir discours bi dafa tàmbali. Mm. ne 60 ans. mais lu mu wax rek nga ne naxee mbaa. non bu bu commencé discours am ne ans d' indépendance loolu ay naxe mbaay la lépp lu mu wax ci biir discours mhm. ngir wane ne Sénégal moo moom boppam dañuy nax loolu foog askan wi mu xamee ko noonu. Mhm. parce que ba tey jii nii bu amee daay Sénégal ay. armée française mooy ñu ñoo jàppale pour fay mhm. bu ñu amee bii jafe wala beneen armée française moo koy fay ak ñeneen benn ñaareel bi président Macky Sall boo déglu bu baax a baax discours am démb 3 avril di nga gis ne euh, lim ñu lim ñu jéem a gëmloo bokk na ci ne jafe-jafe yii ñu am tey coronavirus moo ko waral. Mhm. ah déedéet. Mhm. loolu la ñu bëgg a gëmloo te ñun nag waruñu ko nangu xam nga lu tax ndey kumba parce que tout simplement euh, sa suñu suñu hôpitaux yi xaaruñu Covid 19 pour ñàkk pour tumranke pour am jafe-jafe. mais yàgg na bi nga xam ne Sénégal au lieu de un infirmier pour trois cents habitants ñun ñu ngi am un infirmier au Sénégal pour huit mille habitants loolu du coronavirus moo ko teg Mm. tey jii nii ñu ngi am un hôpital pour cinq cent quarante deux mille habitants au Sénégal alors que norme OMS c'est un hôpital pour cent cinquante mille habitants maanaam suñu hôpitaux yi dañoo fees bay tuuru li ñu waroon am ci limu doomu aadama fees na ba ëpp trois cent quatre vingt mille habitants loolu du coronavirus moo ko waral. Mm. kon ba nga xam ne bum ñu gëmloo ne jafe-jafe yi ñu nekk tey coronavirus moo ko waral li ko waral mooy ñun dañoo waroon xoddeeku yàgg na. dañoo waroon fagaru yàgg na bañ a jiital TER BRT stade olympique euh, mais fonds politique xawma chargé de mission ak HCCT euh, ak 16 li ñu waroon jiital mooy jamono ji nga xam ne syndicat yi rawatina syndicat de la santé ñu ngi xeex naan woy sonn nañ woy lopp nañ woy damm nañ ñu déglu leen ba pare jiital loolu waaye comme yow président comme yow ministre comme yow député comme yow borom barke Sénégal saay boo feebaree yaa ngi dem faju bitim réew mën nga saboter hôpitalu Sénégal. mën nga ñàkkal fulla hôpital Sénégal waaw. Mhm. mais malheureusement. Mhm. àddina. Mhm. daf ma jox dëgg. Ndey Kumba 1973 Baye Niass. yàlla na yàlla yokk leeram mu ngi dee hôpital Londres mu ngi dee hôpital bitim réew. 1973 tey ñu toll ci 2020 ba tey jii nii suñu ay kilifa moo xam politique moo xam aada moo xam leneen ak leneen bëri na si ñoo xam ne ñu ngi dee bitim réew qu'est-ce qui a changé. defe naa ne que Baye Niass yàlla na yàq yàlla na yàlla yokk leeram fu mu nekk nii am na li ko métti fu mu nekk nii am na naxar ndaxte foogoon na ne 73 83 93 2003 2013 2023 50 ans après. xanaa kay kilifa yi doomu aadama yi fii la ñuy fajoo ba mucc fii la ñuy fajoo bu ñu mënul faju ñu dee donc Sénégal changé wul Sénégal dafa dellu ginnaaw maa ngi ko doon wane sànq. 1700 mhm. euh, un agent d'hygiène pour 1700 habitants 52 un agent d'hygiène pour 33000 habitants euh, 2020. 2020 loolu defuñu sax sur place. dañoo dellu ginnaaw te li ko waral mooy rek bëgg alalu àdduna li ko waral mooy golo di bëy baabun di dundoo li ko waral mooy système boo xam ne euh, c'est l'enfer des uns qui fait le paradis des autres maanaam golo di bëy baabun di dundee ñun askan wi ñu ñooy golo di bëy di bëy di bëy mu am ay téeméeri nit ay juróom téeméeri nit d'accord lim bu tuuti ñoom ñuy dundee suñu ñàkk suñu deret d'accord di saboter suñu école saboter suñu njàng saboter suñu kaarange ñoom ñu am lépp. voilà mais ci ci ci li muy wax ci mesure yi que dina euh, comment dirais-je dina euh, fayal facture courant yi parce que c'est une demande sociale depuis euh, Covid 19 bi dugg ci réew mi ñuy coow ay confinement ay couvre-feu ñu gis ni actuellement pratiquement activité yëpp a taxaw sénégalais bu fekkee dañu sonnoon benn actuellement euh, sonnu nañu ñaaf ko wala lu ko ëpp euh, nee na dina fay facture électricité wu sénégalais yi ci ñi nga xamante ni ñoo abonné ci tranche sociale loolu déjà yow lan nga siy wax li ma ciy wax mooy mhm. def na ay proposition yoo xam ne nee na jamono ji ñu toll mhm. dina jàppale effectivement ñenn ci askanu Sénégal un million de ménage tranche sociale ak ñoom seen dina jàppale euh, entreprise yu Sénégal petite et moyenne entreprise yu Sénégal ak ñoom seen mm-hmm. jàpp naa ne bëri na ay proposition yu mu def mun nañ ko rafetlu euh, mun nañ ko dooleel li ñu ñaan yàlla mooy mu euh, mu demee noonu kon loolu apprécier nga ko li mu wax am na ci ndox mi ak courant am na ay proposition yu mu wax mm. man maa ngi rafetlu comme courant bi li mu wax ci courant bi ci ndox bi ci yeneen ak yeneen. Mhm. donte jàpp naa ne war na weesu foofu damay fàttali ne aar li nu bokk ak Noo Lank euh, matul semaine bi ñu defee enfin ëpp na semaine bi ñu defee communiqué. Mhm. pour wane ne jamono ji la ñu war a gën a wàññi courant bi. Mhm. waxuñu woon sax tranche sociale rek. ñëpp la ñu wàññil courant bi parce que nag li ñu bëgg a gëmloo mooy. avant Covid 19. tout est tout était orange. yokk déedéet. yokkumte courant bi. yokk yokk courant bi. Euh, am na ñoo xam ne dunduñu ko mooy mooy ñi muy woowee transsocial ñun loolu d'accorduñ ci yokk courant bi ñëpp la laal ñëpp la laal même ñi nga xam ne dañoo néew doole. Mm. ñun ñëpp gis nañ factures yi. ñi ñuy déglu xam nañ ne même ñi ñuy woowee ñi nga xam ne dañoo néew doole. Mm. seen facture dafa yokk donc bu ñu bu ñu gëmloo ay mbiru transsocial mais li ñu jàppoon mooy fu mu nekk nii koo xam ne liggéeyatoo. koo xam ne journalier nga woon. Mm. wala leneen wala leneen nga woon amatoo benn xëy amatoo benn gont. Mm. mais yow euh, euh, dëgg la bu ñu waxee tranche sociale baax na mais ñeneen ñi nag ñeneen ñi nag. Mm-hmm. entreprise yi mais euh, ñoom bu ñu leen jàppalewul tamit ci courant bi du baax. d'accord donc loolu itam foog ñu xamee noonu ci entreprise yi lay des pour wane ne. Mm-hmm. waa comité ñu bëri dem nañ technique. non seulement ça. Mm-hmm. waaye waa comité des industriels du Sénégal CIS. yi nga xam ne euh, seen benn jumtuwaay mu ngi tudd Abdourahmane Diouf ñoo fi wax yàggul trop ne nag foog ñu xoolaat seet seetantal li ñuy woowee entreprise nationale lan mooy entreprise nationale. Mm. Ndeye Comba est-ce que xam nga ne am na ay entreprises yoo xam ne. ay doxandem ñoo ko créé Sénégal ak xaalisu doxandem. ay doxandem maanaam. mais parce que fii maanaam ñeneen ñoo xam ne ku ñooy Sénégal. Mm-hmm. parce que tout simplement fii lañ ko créer biir Sénégal ñu ne entreprise nationale. mais loolu moo am et donc bu ñu waxee dañuy jàppale entreprise nationale ah suñu xaalis dina dugg ci ñoo xam ne ay entreprise française la ñu dëggantaan jaay mhm. donte xëy na fii lañ ko créer mhm. ay entreprise États-Unis mhm. ay entreprise Angleterre ak ñoom seen donc loo gis tamit day indi beneen coow fi may daanelee mooy ndey kumba ñun ñu doon xaar ci président de la république moom mi nga xam ne déjà avant coronavirus jaraaf bu ndaw la buur bu ndaw la muy buum di bumi liñ doon xaar ci moom mooy mu dem assemblée nekkat kat waa assemblée nationale maa ngi leen di ñaan ngeen voté loi boo xam ne day supprimer HCCT supprimer conseil économique social et environnemental ni moo ko defee woon jamono 2012 ji nga xam ne. bi inondation amee mbënd mi dama supprimer woon Sénat loolu mooy jéego bu njëkk. man bi ma doon xaar ci président de la république maa ngi sàkkuwaat maa ngi waxaat maa ngi biral hmm. maa ngi bépp HCCT ak conseil économique social et environnemental dañu leen war a supprimer dañ leen war a tas bu fekkee ñoom lu ñuy wax dëgg la ci ne. mais xanaa kuréel yooyu amul njëriñ. ban njëriñ la am bañ war bañ leen tas. ban njëriñ la am. lu dul casé ah, ay clientèle politique dëgg la mais ban njëriñ la am. tey jii nii fonk man jàpp naa ne bu ñu tasoon HCCT ak conseil économique social et environnemental du am lu muy wàññi tous ci dundinu askanu Sénégal. saa su nekk mais la question que tu dois te poser mais 2012 Sénat institution la woon. Mm. xanaa amul njëriñ. dama ne président Macky Sall le 19 septembre 2012 moo ne à cause des inondations damay tas Sénat 7 ak 8 milliards muy budget sena ma jël ko dugal ko ci xeexum inondation yi. ndey kumba mm. tey jii nii la Sénégal gën a tiit. tey jii nii la Sénégal gën a am njaxare donc tey jii nii la ñu gën a soxla xaalis 1000 milliards yi ba tey jii nii. dégg ko président Macky Sall ci mille yi am nañ si cinq cent cinq cent milliards wala sept cent milliards donc xamuñu sax ñaata la ñu am donc ba mu naan entreprise yi sax yi nga xam ne dañoo def don don boobu dinañ ko génnee ci seen xawma dette fiscale wala ci seen cotisation fiscale yi war a def mais loolu mooy lan loolu nekkatul don donc ñun dañoo manqué le xaalis nañu tas ñaari kuréel yooyu nañu tas leneen ak leneen loo xam ne comme ni ma ko waxee woon golo di béy baabun dundee la woon xaalis boobu askan wi moo ko gën a soxla xaalis boobu ñi nga xam ne ñoo nekk hôpital ñoo ko gën a soxla ndey kumba mm. est-ce que xam nga ne jamono ji ci hôpitalu Sénégal am na ñoo xam ne dañuy fóot gant parce que gant doyul est-ce que xam nga ne jamono ji ñu toll am na personnel soignant boo xam ne dañuy stériliser masque mm. masque bi nga xam ne da nga ko war a sol ñaari waxtu gën saa bëri ñetti waxtu sànni ko mm-hmm. comme masque yi doyul ñu ngi koy stériliser donc ça veut dire que ñi nga xam ne ñooy suñu soldat di mettre leur vie en danger muy infirmier muy médecin muy biologiste ak ñoom seen dañoo manqué les matériels fan dañoo manqué les dañoo manqué les masques donc nañu jël ci xaalisu HCCT tas ko nañu tas conseil économique social et environnementale jël xaalis bi dugal ko ci ay moyens yu doy pour suñu ay infirmiers biologistes médecins ak ñoom seen ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir waa Kër Docteur. ak jàppale ko askan wi ak. Euh, petite et moyenne entreprise. ñu ngi leen di fàttali yéen ngi suivre seen émission sociale toute la ville en parle tey jii Ndeye Comba euh, dalal Guy Marius euh, Sagna nekk membre bu Front FRAPP France dégage Guy Marius Sagna voté nañ loi d'habilitation lépp Covid 19 moo ko daal di waxal bari na coow polémique ñenn ñi jàpp nañ ni peut-être sax président Sall dafa bëgg a jaaree ci crise sanitaire bi pour en plus de pouvoir yi nga xamante ni amoon na ko maanaam abusé yow ban jàngat nga. am ci loi d'habilitation bi nga xamante ne euh, voté nañ ko il y a deux jours trois jours ci assemblée nationale. sama xalaat mooy ba su frappe frappe dafa génnee benn communiqué. Mhm. pour wane ñàkk àndam ak loi d'habilitation boobu. tey jii nii li Sénégal soxla mooy gan mooy masque mooy infirmier mooy médecin mooy juntuwaay loolu mooy tey jii nii. suñu ay ngànnaay leen carrément ci loi d'habilitation. maa ngi siy ñëw voilà ñun ngànnaay yu ñu soxla mooy ngànnaay yooyu. gants masque respirateur médecin infirmier mhm. ngànnaay yu ñu soxla c'est pas que nga jël ab roi def ko empereur c'est pas que nga jël ab buur nga def ko burba c'est pas que nga jël ab jaraaf nga jox ko damel maanaam nga def ko damel wala nga def ko téeñ déedéet président Macky Sall wala président Sénégal sax li ñuy wax de 1960 à jamono ji ñu toll 2020. Mhm. Mhm. ay buur lañu ñooy buum di buum mi ñooy nommé à tous les emplois civils et militaires ak yeneen ak yeneen. waa léegi yow naka ngay soxlawee naan waa léegi ci diiru ñetti weer dama leen ñaan. Mhm. doole bi assemblée nationale amoon yëpp. ngeen jox ma ko man parce que loolu mooy loi d'habilitation. Mhm. donc fu mu nekk nii confusion de pouvoirs la. Mhm. concentration des pouvoirs la or. mooy buum di buum plein pouvoir. article cinquante deux constitution moo ko prévoir. Macky Sall laajul article cinquante deux boo gisee loi bi article soixante dix sept nga fay gis ak article soixante neuf. Mhm. pas article cinquante bi nga xam ne mooy wax plein pouvoir nekkuñu ci jamono plein pouvoir jamono yi ñu nekk c'est état d'urgence sanitaire état d'urgence sanitaire nag. ay mesures sociales et sanitaire moo koy xeex pa mhm. ay mesures policières pas ay mesures ay doole ay mesures de concentration de pouvoir ay mesures de plein pouvoir donc président Macky Sall ci loi d'habilitation boobu dafay politiquer coronavirus ci de d'habilitation boobu président Macky Sall dafa ñaan loo xam ne jotewul dara ak coronavirus. Hmm. bu waxoon ne ngir xeex coronavirus lii ak lii ak lii laa soxla ñu jox ko lépp li xeexum coronavirus. laaj mais yow looy doyee naan doole assemblée nationale yëpp jox leen ma ko déedéet yow kay dafa am li ngay wàcc dafa am li ngay nar dafa am yow li nga yàgg gént doole yi nga am da nga bëggaat yeneen ak yeneen. waaye de fii lañ ñuy fekk ñun askanu Sénégal. pare ngeen demaat au front. yéen fii lañ ñuy fekk. Mhm. jamono jii ñu nekk ku fi séddale ay vivre ci yaama neex ci mbirum politique ci mbirum tappale wax dëgg yàlla lu ñu munti wax ci xawma interdiction des rassemblements ak couvre-feu. Mhm. dinañ ko digaaleeg ñoom. Mhm. parce que nag suñu baskan suñu bakkanu askan moo nekk en mënuñu nangu nag ñuy politiquer xaalisu askanu Sénégal d'accord di ko politiquer jamono jii ñu toll ñuy séddale ci yaama neex ñuy def ci yaama neex ñuy def ci loo xam ne wax dëgg yàlla jiitaluñu njëriñu askan wi mais ay njëriñu parti ay njëriñu njaboot ak ñoom seen la ñu jiital. voilà guy ñu ngi ci euh, actuellement euh, couvre-feu état d'urgence sanitaire gis nga bu vingt jotee ñu tëj Sénégal yi ba six heures du matin euh, gis nañ ni la maladie avance ñu ngi am ay on a deux Euh, euh, même su fekkee am na euh, ñoo xam ni sax ñu ngi leen di faj ñuy weer di ñibbi seen kër gis nañu tamit lim bi mu ngi gën a yokk ba ñuy laam-laamee confinement confinement maanaam dañu bëgg a tëj sénégalais yi carément comme ni ñu tëjee waa France wala Italie ainsi de suite est que yow d'accord nga ci confinement bi confinement bi coow li bari na parce que am na ñoo xamante ni nee nañ réalité wu réew France wala Italie wala feneen bokkul ak réalité Sénégal te ne du génn du liggéey du góor góorlu ji faw nga jox ko lu mu dundee lan ngay wax ci euh, confinement boobu ñuy laam-laamee te ñuy ragal sax ñu yegg fa maa ngi ñaan di sàkku ci képp kuy déglu réew mi fm jamono ji hmm. képp kuy soppee réew mi fm rawatina soppee euh, tout la vie en parle bu ndey kumba muro hmm. mu respecté benn les consignes sanitaire mu respecté ñaar les consignes administratives nañuy raxasu bu mënee nekk waxtu bu nekk. lu mu néew néew na raxasu nañu raxasu au moins benn yoon par waxtu. Mhm. ñuy moytu nañuy respecter distanciation sociale nañuy bañ euh, di groupe waaw. mbokk yi ñuy déglu mm. nañu bàyyi kaasu ataaya yi nga xam ne dañuy mot ñaar fukk di ataaya di paasante kaas yi mm. nañuy bàyyi ñi ñuy déglu naan ay tuxal ma benn cigarette mm. fukki nit di si tux nañu bàyyi yi nga xam ne day wàllante affaire bi ndaxte kat coronavirus du ay caaxaan coronavirus lu am la suñu mbokk Pape Diouf euh, yàlla na ko yàlla yërëm génn na si àdduna suñu beneen mbokk démb benn jigéen bu am lu ëpp juróom fukki at gaañu na yàlla na ko yàlla yërëm yeneen sénégalais bitim réew gaañu nañ si yàlla na yàlla yërëm donc du ay caaxaan nañu respecter conseil euh, sanitaire et administratif léegi man dama jàpp ne confinement bi du solution fii ci Afrique rawatina Sénégal ndaxte gis nga ne nañ un million de ménage la ñuy jox euh, ay dund waaw te dund yooyu sax waaw <laughs> mooy loolu donc man naa si d'accord ci benn condition bu fekkee ci diiru confinement bi yépp képp kuy doomu Sénégal dinañ la jox nga lekk ba mu doy waaye loolu bu amul te nga bugg a def confinement li nga nar a def mooy da ngaa nar a xiifal ay doomu aadama te loolu mënuñu ko seetaan. Mm. et loolu daf ñuy permettre ñu delluwaat ci yenn ci famille bi ci yenn ci euh, maanaam njabootu Sénégal ndaxte ay joxe dundu rek doyul béykat yi sàmmkat yi nappkat yi. ak mm. ñoom seen li ëpp ci Sénégal secteur informel la. yaa ngi jàppale ay entreprise c'est bien yaa ngi jàppale ay facture mais li ëpp ci suñu askan du fay facture amul ndox amul courant. d'accord donc ñii di yëngu ci wàllu secteur informel naka lañ leen di jàppalee ci dund yi baax na waaye doyul donc même junni milliards yi dafa tuuti. nañ ko yokk ñuy wax tamit ñu fayal leen seen location. mais parce que ku génnul liggéeyi woo amoo loo dajale. bay fay location wala ñu fayal leen seen. location wala ñu arrêté ko. wala ñu suspendre ko ba jamono neex. ñu xool naka lañ koy fayee mieux dama siy yokk ñaar benn bi dama jàpp ne jamono jii ñu toll ba coronavirus jóge fi kenn warul dàq doomu aadama ci luwaasam maanaam ku tardé fay luwaas ak lu mu munti doon waruñu ko génnee këram ndaxte munoo ne restez chez vous wàññi leen seen déplacement couvre feu de vingt heures à six heures du matin. Mm -hmm. voilà donc président Macky Sall ci mesure dafa war a ne. Mm-hmm. à partir d'aujourd'hui Sénégal bu ñu dàqati kenn ci këram ndax ñàkkum luwaas. Mm-hmm. ñaareel bi mooy bu benn entreprise dàq liggéeykat. ba keroog coronavirus di fi jóge maanaam dàq liggéeykat amatul. Mm-hmm. parce que boo ko dàqee yaa ngi koy xañ payoor boo ko dàqee yaa ngi koy xañ li nga xam ne moom lay dundalee en fait ay waa këram donc loolu itam foog ñu boole ko ci li nga xam ne moom mooy euh, moom mooy mbir mi beneen bi mooy la seule entreprise pharmaceutique bi nekk Sénégal. Mm-hmm. ñu koy woowee Médis Sénégal. Mm-hmm. xoole nañu ba mu tëj janvier euh, le 15 janvier 2020 bii passé nañ ko ubbiwaat. nañu ubbi waat entreprise boobu. est-ce que xam nga ne. Euh, Ndeye Kumba Moro entreprise boobu. ndax chloroquine bi ñuy wax. moom rek mooy defar paracétamol fii Sénégal. moom rek mooy defar maanaam chloroquine. Mhm. te laajal waa kër docteur. tey jii nii pour faj. li nga xam ne moom mooy jàngoro jooju. mbas mhm. boobu ñuy woowee coronavirus. Mhm. da nga soxla paracétamol. paracétamol ngay njëkk utiliser. da nga soxla en fait euh, maanaam chloroquine entreprise bi nga xam ne moo koy defar. seetaan nañu ba direction bi lekk xaalis bi d'accord ba ñu tëj Sénégal daf si am un euh, daf si am ay action moins de cinq pour cent c'est l'occasion de dire de lancer un appel aux neneen Sénégal na ubbi waat entreprise boobu nekk actionnaire majoritaire wax privé maanaam doomu Sénégal ñu euh, ñoom itam nekk si ay actionnaire ndaxte jàngoro ji li mu wane mooy boo mënalul sa bopp ci wàllu garab. Mm-hmm. boo mënalul sa bopp ci wàllu vaccin wax dëgg yàlla dinga nga bëgg a garab di xaar ay France ay États-Unis di nga bëgg a vaccin vaccin di jóge beneen. ñu naan vaccin bi est-ce que day wàññi maanaam njuru suñu jigéen yi am déet mais loolu bi mooy dépendance loolu dañuy delloo tamit ci 4 avril gii. 60 hmm, ans d' indépendance mënuñu defaral suñu bopp garab mënuñu defaral suñu bopp vaccin ndey Kumba est ce que xam nga ne programme élargi de vaccination maanaam ñàkk yu ñuy ñàkk suñu. lii 80 hmm. pour cent de budget mu ngi jóge bitim réew. waaw léegi yow bu ñu la ñàkkee suba nga nekk golo bu ñu la ñàkkee suba nga nekk jànk am jëkkër mënoo am doom. Hmm. ah bul mere kenn yow yaa jël say doom. quatre-vingt pour cent lu lu ñu leen di ñàkk nga dénk ko bitim réew bitim réew bi nga xam ne bëri na si ay tubaab yoo xam ne saay su nekk y compris Nicolas Sarkozy li muy wax mooy la fécondité des femmes africaines et un problème li mu nit ku ñuul ci àddina bi jafe-jafe la hmm. du ñu nangu nit ku nit yu ñuul yi toll ci lim joo xam ne d'accord dañuy ëpp dañuy jaay doole dootuñu mënati dara ci ñoom donc nañu ubbi Midi Sénégal nationaliser ko nationaliser ko état du Sénégal nekk actionnaire ma ay privé ay doomi réew Sénégal nekk les autres actionnaires ñu am au moins ñu commencé am euh, lu baax ci Covid 19 bi ndaxte nag. Ah, ça fait l'occasion malheureusement. Mm. li ñuy wax ak quelque chose peut-être malheur et bon Covid 19 bii. dafa dafa dafa am ay jàngat yu bëri dafa am ay message yu bëri yu mu joxe Macron yu mu jox Chine yi mu jox États-Unis waaye yi mu jox Afrique tamit doomi réew mooy tabax réew da nga am da nga war a am souveraineté sanitaire da nga war a am souveraineté pharmaceutique da nga war a am souveraineté vaccinale état du état du Sénégal ak yeneen état yi nañu boole seen doole au moins nañu boole seen doole pour régler ensemble la question des médicaments la question des vaccins parce que am nañ ay doomu Sénégal Ivoirien Togo Kenya Sud-Africain et cetera yi am xam-xam bi yi am xarañ bi mais ce sont les moyens qui manquent c'est la volonté politique qui manque ñu nekk fii rek euh, euh, golo di bëy les entreprises les multinationales pharmaceutiques des États-Unis ak de la France di dundee di dundee ñun daal waruñu defar dara ñun daal waruñu am dara lu am solo ñun waruñu ko defar li am solo ñoom nañ ko defa di ñu koy jaay déedéet dafa doy Sénégal waratul nekk luuma Afrique waratul nekk luuma maanaam un marché boo xam ne duñ si defar dara lu am solo duñ fi defar dara lu am maanaam fulla dañ koy xaare bitim réew euh, Boun Abdallah Dionne ancien premier ministre moo wax mm-hmm. benn bés mm-hmm. mais ñun mënuñu sax defar pont pont lan moo nekk ci pont ba mënuñu defar pont mm-hmm. pont pointe clou ban technologie moo nekk ci clou ba Sénégal 60 ans après indépendance ponte sax mënu ko defar ndey kumba hmm. jàngoro ji dafa yokk doole discours boo xam ne ñoom la ay Thomas Sankara Lumumba Pat euh, et cetera tu vois un peu Amilcar Cabral euh, tu vois Mamadou Dia euh, hmm. Lamine Ibrahima Arfan Senghor Seydou Sissoko hmm. bu PIT ak ñoom seen discours yooyu ñu doon am ñu doon wax dafa gën a am doole tey. voilà dafa gën a nekk moo ñu dese mais question bi faaw nga wax ci Guy Marius Sagna euh, di coowal vaccin yi euh, gis nga ci benn euh, chaîne télévision française LCI ñu ngi doon def benn débat avec les médecins et tout ñuy wax si affaire au vaccin BCG ñuy wax ne vaccin yooyu dañu bëgg a ñëw essayer ko en Afrique et puis am na am nañ accord sax vingt sept chefs d'État africain yoo xam ne d'accord nañ ñu ñëw seen réew essayer fa vaccin boobu gis nga. tole bi nga xamante ni jur na ko euh, sénégalais yi di di di ko ñaxtu surtout ci les réseaux sociaux lan nga ñu mën a wax par rapport ak mbir moom pratiquement waxtu bi sax jeex na. Euh, colonialiste li ñi nga xam ne dañu yàgg noot. jamono colonisation. dañu yàgg jëfandikoo. ñun nit yu ñuul ni ay cobaye. maanaam lépp lu ñu bëgg a ci ñun lañ koy essayer. ba mu wóor leen ne baax na ñu soog ko ñoom pikiir. seen askan. loolu da doon jur ay moor yu bëri ñu bëri dañ ci doon dee ndaxte tey ki vaccin yenn saay pour nga xam ndax baax nag yooyu dangay def ay essai ak yooyu mhm. donc ñu bëri ci ñun dee nañ donc loolu du gulet damay fàttali ne kenn ci ñoom Hitler biir Europe mais moo jël ay doomu aadama def leen ni ay bàyyi ma dama damay fàttali ne capitalisme moo def euh, bombe Hiroshima mhm. bombe Nagasaki donc ñoom li ñu sañ ak li ñu sañul amul àpp mhm. foo ko àpp rek weesu na ko donc ba nga xam ne war nañ am tiitaange ci ne ni ñu utiliser woon ay doomu aadama Afrique di leen di def ay essai ci wàllu euh, maanaam euh, utum garabu VIH ak ñoom seen bu ñu moytuwulee loolu dina continuer donc ba nga xam ne ñu ngi rafetlu mobilisation sur les réseaux sociaux ak feneen. Mhm. citoyens yi pour ne déedéet l' Afrique n' est pas un cobaye. ne l' n' est pas un laboratoire. Mhm. les Africains ne sont pas des cobayes. maa ngi dëggal loolu nous ne sommes pas des cobayes. nous ne sommes pas taxaw laboratoire léegi nag. ñu bañ ko vacciner benn. Euh, sénégalais surtout ma ne ku fi ñëw Sénégal. Mhm. ku fi dugg suñuy kër. Mhm. naan dangay ngay pikiir pikiir joo xam ne kenn xamul fu mu jógee nañu joxe ndigal. nañ ko dóor a dóor a dóor ba yaram bi nor duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg duñu yem ci dóor leen waaye suñu ay kilifa foog ñu waxante ak ñoom léegi nag dégg naa li Diouf saar wax démb. Mhm. nañu jàpp loolu nee na ñoom nanguwuñ ko tey nanguwuñ ko ëllëg nañu jàpp loolu continuer di sensibiliser continuer di wane suñu ñàkk ànd ba pare di vigilant di xool di seet di seetantal ngir mu bañ am. Mhm. mais euh, dernière question juste une minute par rapport ak sortie euh, bu secrétaire général bu ONU e li mu wax euh, gis nga tamit tole bi mu jur ba def ay prévision par rapport ak coronavirus bi maanaam tey jii Europe li muy dund ak lay faatu malgré ñoom moyens yi ñu am États-Unis lay dund euh, li ñuy dundee feebar bi malgré moyens yi ñu am wala Chine mbir mi dana def des millions de de de de morts en Afrique lan ngay wax tamit ci déclaration bu secrétaire général bu organisation des Nations Unies. ñaar. Mm-hmm. bu fekkee Nations Unies dafa soxla xaalis. Mm-hmm. na bàyyi di campagne Afrique. Mm-hmm. na bàyyi di utiliser. ces déclarations et prévisions alarmistes yoo xam ne. basé wul ci tous pour out xaalis. benn ñaareel bi mooy wax dëgg yàlla bu ñu waree tiit nañu tiit ci seen bopp d'abord. nañu tiit ci Espagne Italie ak États-Unis bi nga xam ne battre na record bi démb en un jour plus de 1000 morts Italie 27 mars en un jour 929 morts moo tax tamit ñun africain suñu ay kilifa suñu ay ndaw war nañ xoolaat bu baax. yow tey jii nii France bu ñëwee naan waaw damay créer benn G5 G5 cobaye pour xaw ma jàppale Afrique mais yow jàppalal say médecin jàppalal say infirmier yow réglé en fait ñi nga xam ne ñu ngi dee bés mu nekk France. Mm-hmm. yow mun nga ñu gëmloo Emmanuel Macron vétérinaire yi di ko sauver askan wi mun nga ñu gëmloo yow Emmanuel Macron. Mm-hmm. doomu Afrique moo la ëppal njëriñ moo la ëppal fulla que doomu France yi nga xam ne mënoo ci ñoom dara donc nañu ubbi suñuy gët. Guterres lu mu wax c'est scandaleux Guterres lu mu wax c'est tout simplement inacceptable donc nañ ko dàq ba pare ñun gën a xam ne déedéet. nu nous devons compter sur nous-mêmes d'accord nañu boole suñuy doole saafaral suñu bopp suñuy jàngoro suñu ay jafe-jafe jàpp nag ne dëgg la ne lim ñi nga xam ne ñoo am coronavirus ak ñi ci dee Afrique bëriwul waaye nag xoddeeku balaay lakkale waaye nag bu ñu naagu ndaxte ku naagu daagu te ku daagu covid 19 rey la te bugg ñu nga tàggoog auditeurs yi euh, euh, euh, sonn ci covid 19 bi xanaa di la gërëm di la sant mm-hmm. Ndeye Comba moro di gërëm di sant euh, ñëpp ñi nga xam ne ñooy liggéey. Euh, mhm. fii euh, ci réew mi FM man ko doon wax sànq balaa ma commencé. Mhm. j'ai une affection particulière pour réew mi FM. Mhm. ndaxte ñun ak réew mi FM du tey du démb lu yàgg la donc ma leen di encourager c'est la première fois may ñëw ci loko yi. wax dëgg yàlla yanj na yàlla na yàlla xeeb dolli. yokk mën-mën yokk kattan. ndaxte li ñu gëm mooy doomi réew mooy tabax réew. te réew mi FM yéen mii di fi liggéey ay doomu réew ngeen. moo tax ñu am mbégte saay su nekk di fi nekk di fi ñëw saay bu ngeen ñu woowee guddeeg bëccëg ñun tam ñu am mbégte saa su ne di la dalal vraiment. <laughs> merci beaucoup Ndeye Comba. <laughs> Mhm. Euh, askanu Sénégal nañu respecté consigne sanitaire. Mhm. nañu respecté consigne administrative nañu ànd xeex euh, lii di coronavirus te incha allah dinañ ko daan. ayca mi ngi noonu ñu koy remercier bu baax a baax euh, Guy Marius Sagna nekk membre bu Front Frapp France Dégage di remercier suñu auditeurs yi nga xamante ni chaque samedi ñooy ànd ak ñun 10h jàpp 11h di jaajëfal Léon Paul Mendy ci technique bi. ak réalisation bi émission bi tamit mën ngeen a euh, rattrapé wu ci suñu euh, euh, compte YouTube suñu chaîne YouTube Rewmi officiel mais tamit ci suñu portail internet www.rewmi.com ñu leen di remercier bu baax a baax di remercier une fois de plus Guy Marie Sagna ak tamit suñu technicien yi nga xamante ni ñoo nekkee côté bi di leen baaxee émission bi version vidéo également di ngeen ko mën a am ci suñu chaîne YouTube Rewmi officiel jaa ngeen jëf ba samedi prochain incha allah.